ki dee laaj mu ne lu tax soo defee planning pikiir bi doo gis règle bëri na ci planning yoo xam ne liñ ciy xaar mooy boo ko defee doo gis règle lu tax doo gis règle ci planning yooyu bu fekkee gan nga ci kër gi mën nga saxoo di partager jublu ci ñee képp kuy too vidéo bi bisimilah ñu tontu ci laaj bi laataa ñu tontu ci laaj bi dañ leen di fàttalil li nga xam ne moom mooy règle fan lay jógee doomu aadama bi nan lay def bay gis règle mais également dañ la fàttali benn ci mode action planning bi nan lay def ba bloquer règle yooyu doomu aadama bi bu fekkente ne day gis règle dafa am benn pouce boo xam ne mu ngi nekk ci butu njurukaay bi ñu naan ko endomètre day tabax bu tabaxee tabax tabax tabax tabax tabax ba tabax bi jóg bu règle yi di commencé maanaam premier jour des règles tabax boobu day daanu tabax boobu daanoo nag mooy waral muy gis dret ci bésu bi nga xam ne moom la tabax bi daanu ba set en général ñu ngi ko xayma ci juróom-ñaari fan entre ñett fan ba juróom-ñaari fan bu fekkente ne tabax boobu set na règle bi day set léegi nag planning bi bu ko nit defee day dem asir ci couche boobu noonu ci bi day arrêté tabax bi soit mu arrêté tabax bi wala mu wàññi tabax bi léegi nag su arrêté tabax boobu yow comme que sa endomètre bi tabaxul tabax boobu du daanu du daanuwul nag doo gis deret loolu waral boo defee planning doo gis benn deret waaye loolu tekkiwul ne deret jaa nga fa da nga koo gisul maanaam tabax ba moo fa nekkul moo tax tabax bi daanuwul deret amul loolu c'est un bon résultat ci planning nekkul loo xam ne lu ñu war a soucier wu la def ko problème def ko suñu bopp de telle sorte que nit ñu bëri dañuy jàpp ne sax gisuñu deret gisuñ règle c'est parce que deret jàng ci biir